moom suñu bopp dafa war a màndargal sunu askan dafa war a màndargal suñu xeet euh, bés bi nag dafa mel ni comme africains yi xamuñu ko bu baax yeneen continent yi ñoo koy gën a euh, jox gëdd euh, sunu institution yi war nañ si mën a bàyyi xel bu benee yéen comme ni koy defee ak yeneen continent yi ñu xoolee ko noonu ONG Otra Africa nag depuis bi ñu ko sosalee si Espagne dafay jàpp bés bi comme di ko màggal biir ak nasaraan ak tubaab si pour waneen leen ni que Afrique du liñ si yaakaar rek mooy maanaam fu ñu waxee waxu Afrique xeex la guerre la beddante la xiif la mar la Afrique bu salte Afrique bu tilim déedéet ñun autre Africa du loolu la ñuy wone si bés bi dañu yàgg a wone ni que Afrique dëgg la yàgg nañ ko toroxal maanaam jaay sunu maam yi ñëw coloniser ñu sunu diplomate yi bu ñu waxee joxuñu leen gëdd faalewuñu leen sunu koom ñu koy nasaxal loolu yëpp si bés bi ñun ak ñun autre Africa dañu wane ni que Afrique am na leneen loo xam ne mooy ko war a màndargal dañu nag ñaan sunu njiit yi nga xam ne ñoom ñoo yore réew yi ñi nga xam ne ñoom ñooy doxal ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite dañ leen di ñaan nañu booloo nekk benn. tey àdduna bi fu mu toll nii mbas bi wane na ko chinois yi ak américains yi ñu ngi xuloo di ŋaayoo Europe xamatul fu muy teg seen tànk yaakaaroon nañu Afrique ñëpp dee ñu dee ba ñenn kilifa Afrique euh, Europe yi sax wax nañ ko yàlla may nañu sutura ba loolu gisuñu ko fi sunu docteurs yi sunu scientifique yi ñii di liggéeyee ci hôpital yi. ñu ngi takk seen ndigg di jàmbarloo ak mbas bi di jàmbarloo ak feebar bi ba ñoom liñ si yaakaaroon amuñu ko su foofu nag li ñu sukkandiku pour nee nag léegi dafa doy doy na ñu ñuy noot doy na suñu jël di jël suñu alal doy na ñu ñuy foowee doy na amuñu kàddu lu ñu wax ñu ñu koy naxa nasaxal ñu ne suñu njiit yi di njiitu Afrique yi nañu fexe ñu am fulla ak fayda lii di ñëwati bés ni ki tey nañu nekk benn ñuy yëgoo ak seen peuple yi boo xoolee tey franc CFA mu ngi dem ndaxte ay doomu Afrique ñoo ko xeex ba mu jug fi Madagascar wane na fulla wane na fayda bi nga xam ne moo tax ni que tey li mu doon ñaan OMS OMS di ko ko gantal boobu ba léegi tey nangul na ko ko parce que dafa wane fulla wane ni ko boo ma bàyyee ma dem boo ñu àndee ñu moo ma gënal mais koo bàyyi mu demal sa mbagga Afrique nag na jot na tey Afrique doomu africain yépp surtout nag suñu njiit yi ñu am fulla ak fayda bu toll ni que fépp fu ñuy waxee tam ñu mën a toog ñuy dem di di wut ay koppar di àbb ay koppar yoo xam ne sunu ay sët ak ay sëtaat ñoo koy fay na africains yi am fulla mën a yore seen koomu bopp yore seen alalu bopp Afrique rek mën na dundal africains yi nañu bàyyi di topp si nasaraan si nasaraan si di ñu noot di ñu xoxatal sunu doom yi bu ñu fay dem ñu leen di kii bunduxatal ñu yem si lu ñuy yem jéem a xool nan la ñu naataan développer Afrique Afrique war na mën a développer boppam ñun autre Africa si bés bii la tënku pour ñaan ni que yëpp. suñu sëriñ sëpp képp ko am kàddu na nga jël fulla ak fayda taxawal mandargalal afrique ndaxte afrique war na mën a yeewu tey taxawal boppam si aduna bi wasalaam